alekum Sénégal euh, bëgg ñëw leeral leen ci dissolution bi Antoine Diome communiqué bi ngeen gis ne dañoo dissoudre Pastef ñenn ñi ñu ngi ciy tiit c'est vrai mais lan ngeen war a xam dissolution Antoine Diome effectivement mën na ko prononcer légal na wala légalut loolu du yow du man juge bi moo koy wax. ban juge le juge administratif à travers une procédure qu'on appelle le recours pour excès de pouvoir et actuellement Pastef a jusqu'à quatre mois bu jotee décision boobu mu mun introduire recours boobu léegi ci biir quatre mois yi décision bi conséquences yi day appliqué wu maanaam bu yoon ne Antoine war nga dindi effigie Ousmane Sonko da koy dindi bu leen tiit loolu du ci dara bu ko yónnee bloqué compte bi da koy bloqué bu leen tiit loolu du ci dara yéen a ngi dégg bu quatre mois yi bu Pastef dugalee recours ba juge bi statué imaginons juge bi ne Antoine sa décision bi c'est illégal mu annulé ko loolu Antoine def yépp juge bi da koy delloo bu dee nag décision bi baax na c'est à partir de ce moment la ñuy jàpp ni effectivement la dissolution de Pastef am na yéen a ngi dégg loolu mooy première option bi deuxième option Pastef am na possibilité tout de suite et maintenant dugal benn référé suspension moom la leen Amadou Ba bindal référé boobu lu muy jublu danaan monsieur le juge vu que am na atteinte bu ñu porté ci Pastef euh, euh, euh, ci benn benn association day restreindre lii ak lii ak lii du tax mouvement boobu mën na def telle activité telle activité ñu ngi lay ñaan nga suspendre décision bi en attendant que le juge bële ci kaw administratif prononcé wu parce que bii yaa ngi koy dugal euh, euh, cour suprême président bi bii yaa dugal chambre administrative bokkul donc référé suspension boobu mën na tax juge bi ne attention Antoine Diome je suspends temporairement les conséquences de la décision que vous avez prise mais mënul annuler décision bi annulation décision bi recours pour excès de pouvoir la mën a dem léegi nag Pastef même bu dee par extraordinaire juge ba après euh, euh, euh, acte na dissolution bi parce que dissolution bi bokkul dara ak perte des droits civiques biñ bugg a gëmloo nit ñi bokk ci dara tey article vingt neuf de la constitution daf la ne trois façons entité ñoo mën a déposer candidature mu ne la parti politique mën na déposer candidature nit coalition mën na déposé candidature nit wala groupement d'entité wala mouvement Pastef wax na leen ko ci communiqué nee na moom musta dem ak turu Pastef tey yow ak man bu ñu neexee ñu créer mouvement ànd soqali Sénégal wala ànd Euh, dàq bennoo Bokk Yaakaar bu ñu neexee man ak yow ñu bu mouvement boobu ñu ne ñun investir nañ Sonko loolu la nit ñi wax maintenant jarul tiit nee nañ leen ku nekk na def la nga war a def derrière ña li war a liggéey war a toppatoo loolu ci côté yoon ñu ngi koy toppatoo donc ñi leen di euh, chambre naan leen projet beeg projet beeg la et cetera yéen ñëpp a ko bind ne ngeen Pastef esprit la dans ce cas sachez que da ngeen di utiliser benn notion bu ñuy wax en droit le roi est mort vive roi parce que Sonko jàngal leen loolu c'est pas lui sa personne en tant que telle mais c'est toute la masse qui a compris et qui a adopté le projet aujourd'hui donc soyez serein par rapport à cette dissolution bàyyi leen ñu def la ñu yaakaar Pastef yaakaar naa ne seen juriste ñu ngi def aussi la ca war ku jàngat nag motivation yan ca def ci biir article 4 ba ñu sukkandiku ci la loi modifiée de 1991 c'est vrai c'est très élastique et puis les contours ne sont pas définis parce que dafay utiliser ay notions euh, euh, yoo xamante ni fourre-tout la euh, ñoo raw xaan gi xaw ma mbalka lépp nga ci mën a def Mais maintenant, le juge administratif ayons confiance en lui parce que yenn acte yi koy posé dafa am lu tax ils ont besoin de détruire l'appareil politique de Pastef appareil politique bi lañ soxla l'objectif principal c'est quoi outre Sonko bu mu nekk candidat mais aussi l'interdire de battre campagne parce que kenn naa table Sonko wax naa leen ko fii bu faralee kaña wala janax mu dem ak ñépp boole Macky Sall duggal Idi dugg Khalifa dugg ñoom ñépp ñu bokk sax créer benn coalition ngeen dóor leen ba takk leen tey municipal vingt deux mille dafa wane lu leer Sonko dëkk yim jaar xaw a jaar sax dañoo gañe dëkk yim jaaru gañewuñ bu mu nekkutee candidat imaginez mu def campagne législative dem xaw a tottani gaa imagine mu nekk candidat demal boppam kooku rage yàlla yam wax naa leen ko fii tey du dañ si Sonko et day bokk bu demee élection bu dee intention de vote Pastef yi génn nañ à cinquante pour cent je vous dis ici vous n'aurez pas moins de de résultat maintenant si fexe ngeen ba génne 70 pour cent des intentions de vote Pastef ñu dem vote ji je vous assure di ngeen dégg score soviétique ay Sonko Pastef am na wala ku ku yóbbu Sonko am na 78 pour cent maa ngi wax fii tey bind leen ko les chiffres du fen chiffre du fen da jox 1 plus 1 égale 2 intention de vote yi laa wax. cinquante pour cent ñi bëgg a votel Pastef bu ñu génnee kese votel Pastef résultat ba minimum dina nekk soixante pour cent bu dee nag soixante dix pour cent a génn maa leen ko wax di ngeen egg score soviétique di ngeen dégg Pastef dóor na wala ku yóbbu Sonko dóor na gars yi ay soixante douze soixante treize soixante quatorze pour cent de de suffrage loolu rek la donc bu leen tiit bu leen tiit jërëjëf